alhamdulilah rabbil aalamiin wa salli allaahumma wa sallim alaa abdika wa rasuulika nabiyyinaa muhammadin sayyidil mursaliin wa alaa aalihi wa asxaabihi wa man tabi'ahum ilaa yawmi ddiin ammaa ba'd mbokki jullit yi maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp ragal sunu borom tabaaraka wa taala ragal yàlla mooy jafandukaay bi saa boo xamee ne. nattu ñëw na wala jafe-jafe walla musiba mbokki jullit yi ñu xam ne ab nattu dafa bokk ci tëraliinu sunu borom tabaraka wa taala sunna rabbaaniya moo di loo xam sunu borom tabaraka wa taala noona la tëre mbir ya te mënee su ko soppi dafa bokk ci xikmaam aku xarañam muy nit ki daf koy nattu ay nattu yu jàkkaarloo yoo xam ne yii day jëm ci metit yi jëm ci neexit moo tax mu koy nattu ci ñàkk di ko nattu tam ci barile di ko nattu ci wér di ko nattu ci tawat muy wopp di ko nattu ci ak ragal di ko nattu it ci daluk xel lépp loo xam ne nit ki da koy bëgg wala mu di ko bañ ab nattoo nga ca biir boo xam ne day xool ba xam lii nga bëgg dana dox sa digganteeg sa diine dox sa digganteek sa boroomam déet lii nga bañ te ragal ko it ndax dana la tax a saalit ci sa diine wala déet moo tax sun borom tabaraka wa taala ne wa balawnaahum bilxasanaati wassayiaat nattu nan leen ci li nga xam ne yu rafet la ak yi nga xam ne yu ñaaw la maanaam lu metti ak lu la laallahum yarjiun ndax ñu man di delluwaat ci seen borom di tuub waxaat ne wa nabluukum bi charri wal xayr dana nu leen nattu ci jàmm ak ci metit muy ay fitnatan ngir xool leen ba xam nan ngeen di jëfe seeni réaction nan lay deme mu ne wa ilayna turjaun ndax ngeen xam ne ci man rek ngeen di mën a dellusiwaat waaye amu leen feneen fu ngeen jëm mbokki jullit yi bokk na ci yi nga xam ne képp ku am xel te am ngëm yàlla war nga gëm ne mbir yi di xew ci kaw suuf ak lum mën a doon sunu borom tabaraka wa taala moo ko dogal muy lu rëy wala muy lu ndaw mooy ki xam léppam sunu borom tabaraka wa taala xam-xamam dafa matale xam na lu mas a nekk ci gannaaw ca la weesu waaye xam na lépp luy ñëw ca kanamit la dul nekk sax nga xam ne du ma a nekk sunu borom tabaraka wa taala xam na loola su nekkoon nan lay mel sunu borom tabaraka wa taala nee na ma farratna fi lkitaabi min shay téere bi nga xam ne mooy lawxul mahfuus nee na bàyyiwul dara lépp bind na ko ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nanu ne borom bi tabaraka wa taala bi mu bindee xalam muy bindukaay bi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala ci bindee mbir ya wala moom lay digal muy bind mbir ya ba mu ko bindee ba noppi daf ne ko uktub bindal mu ne ko rabbi wa ma aktub lan laay bind yow saa borom mu ne ko uktub maqaadira kulli shay'in xatta taquuma saa bindal lépp loo xam ne lu nar a xew ci àdduna la ba kero yowmal xiyaam di taxaw lépp loo xam ne lu dal ci kaw doom aadama la su dee lu ko neex ci wàllu bakkanam te doon lu baax sooy boo mu xam ne loolu xéewal la waaye su dee lu ko naqar it nag metti ci moom te fekk du mooy yàlla sooy boo mu xam ne it ba tey xéewal la ndax bépp metti metti buy dal ci kaw yaramu doomu aadama wala alalam wala ci njabootam sunu borom tabaraka wa taala daf ko cay faral ay bakkaar di ko ci bindal ay tuyaaba moo tax borom bi tabaraka wa taala di wax ne wa asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum amaana mën ngeen a bañ dara te fekk loola moo gën ci yéen wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sarrun lakum amaana yi ngeen bëgg dara te fekk loola baaxul ci yéen mu teg ca ne wallahu yaalamu wa antum la taalamuun yàlla moo xam waaye yéen xamu leen ndax li ci kanam xamu leen ci dara yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moo tax mu ne man day yéemu naa ci mbirum jullit ki gëm yàlla mooy koo xam ne ay mbiram lépp yiw la su fekkee ne metit nattu metit dafa dal ci kawam maanaam su fekkee mbég dafa dal ci kawam day daal di sant boroomam mu doon aw yiw su metit dalee ci kawam muy ab nattu nee na dafay muñ su ko defee mu soppi ko aw yiw ci moom mu ne nag walla yakunu dalika illa lil mu'min loolu kenn rek a ko mën a am ci kaw suuf si muy ku gëm yàlla ki gëm yàlla rek mooy def saa boo xamee ne xéewal tege na ci loxoom yàlla la ciy sant saa bu nattu tegoo ci kawam mu muñ ngir yàlla kon du jël xéewalu sunu borom tabaraka wa di ko sante keneen ku dul yàlla loolu du melokaanu sunu borom tabaraka wa taala du melokaanu ku gëm sunu borom tabaraka wa mbokki jullit yi mboolem borom xel yi dëppoo nañ ci ne wér gi yaram dafa doon mbaxanam ndëpp moo xam ne daa mel ne nit ñi dañ koo sol waaye ka koy mën a gis mooy ku feebar ki nekk ci wér gi yaramam mën naa dem ba fàtte xéewal gi ne ci moom waaye bis bu ko tawat dikkata dikkalee ci lay door a xam ne ndekete kat man ci jàmm laa nekkoon feebar yi tasaaroo na ci àdduna tasaaroo goo xam ne jéggi na dayo ba néew na wala sax mucc ci kenn mucc ci dund gi noonu la dëppoo tax waxkat ba day wax ne samaniyatun la budda minha ala alfata ولا بد أن تجري عليه الثمانية سرور وهم واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية nee na juróom ñett yoo xam ne doomu aadama yi mënuñu ci mucc bég day am njàqare di am faw yooyu dañuy gaar nit dajeeg ña nga bëgg a dajeel wëlbati ku tàqalikook ñoom moo xam ban façon tàqaliko lay doon mbég soo ko gisee jafe-jafe daal di nekk wala ak yomb ak xéewal ak sotti ku xéewal jafe-jafe sooy boo nga di ko séentu soo jëfee jafe-jafe sooy boo nga séentu sotti ku xéewal ba ca tegu mooy feebar ak wér kon mbir yooyu la doom aadama yi di dund ci seen diggante boo nekkut ci bi yaa nga ci bi yaa ngi ci bii dëgg la tawat yi nag lu metti la lu diis ci bakkan la waaye suñ boroom da koy def ngir xikma maanaam dafa xam lu tax mu koy def loola nag am na ñu ko xam am na it ñu ko réere moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ma min muslimin yusibuhu ada amul benn jullit boo xam ne lor na ko dal min maradin fama siwaahu moo xam wopp la wala lu dul wopp illaa xatta allahu bihi sayiaatihi kama taxuttu shajaratu waraqaha nee na lépp lu ko dal loo xam ne lu metti ci moom la sunu borom tabaraka wa taala daf ci sippi ay bàkkaaram muy ruus muy ruus di wadd comme ni nga xamee ne xobi garab su woowee day wadde ca ndey ja di daanu ci suuf xadis boobu mu ngi ci buxaari ak muslim buxaari génne na ba tey ak muslim jëli ci abu hurayra yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne maa yusibu almuslima min nasabin wala wasab wala hammin wala xusnin wala adan wala gammin xatta shawkata yushaakuha illa kafara allahu biha min xataayaahu amul benn jullit boo xam ne wopp dana ko dal wala coono wala njàqare wala metiit wala lor ba ak déggu ko jam sax déggu jam ci tànkam sax mu seppi ko wala loxoom mu sekki ko nee na lu dul ne sunu borom tabaraka wa taala mi ngi koy faral ci loolu ay bàkkaar yonent bi sallallahu alayhi wa dafa ñëw ci soxna suñuy wax ummu saaib bi mu dikkee fekk ko muy onk maanaam di wonk mu ne ko waaw yow ummu saaib loola dal ba ngay onk mu ne ko day xanaa sibru rek su booxun ma sibru muulu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko déet bul ŋàññi sibru bu ko xas ndax moom kët day dindi ay bàkkaari doomu aadama comme ni nga xamee ne ab taal buñ ca dugalee or day lakk la bokkul ca oor ba or ba kese des fa sell mu ne ko noonu la koy def xadis boobu mi ngi ci muslim moo tax kenn ci asalafu saalix feebar bu metti dafa nekk ci ab tànkam waaye fuñ koy gis rek muy muy muuñ ànd ak mbégteem mel ni dara dalu ko te feebar bu jéggi dayo bu metti la suñ waxee rek mu dellu ci boroomam ñu ne ko waaw yow metti metti nii te kenn du dégg nga wonk mu ne dama xam ne neexiitu tuyaaba ja cay tegu moo ma fàtteloo mettit wi nga xam ne maa ngi koy yëg fii mu nekk kon loolu mooy melokaanu ki gëm yàlla eh, mbokki jullit yi nag buñ gisee lislaam di soññee ci nit ki liy dal ci kawam ci ay nattu ak metti metti mu war ko muñ bumu tax ñu defe ne lislaam dafa bëgg nit ki sàkku ji ay metit wala muy ñaan yàlla feebar wala ay musiba wala ay jafe-jafe déedéet lislaam kay lim wax mooy ku loolu dal ci sa kaw nga yor melokaan wi am nga xéewal waaye la ko gën a nag mooy nit ka muy ñaan jàmm moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne sallallahu al afwa wal aafiya ñaan leen yàlla ak njëggal ak jàmm ndax kat kenn ci yéen fa inna ahadan lam yuta baada baax yaqini xayran min yàlla ak wóolu ko nit ki amul xéewal gu gën a rëy mu am jàmm kon loolu moo tax mu ne dee leen ñaan jàmm yàlla nañ ko yàlla defal kilifa gu mag ci salafu saalix muy mutarrif ibn abdullah ibn shakhir nee na man day ma ànd ak sama jàmm di sant sama boroom moo ma gënal ñu di ma nattu may muñ kon ñaari mbir la yoo xam ne benn bu ci nekk am na tuyaaba waaye nag bii moo gën ndax ginnaaw bu ne day indi tuyaaba ba noppi bii jàmm la bee di indi tuyaaba waaye dafa ànd ak metit mu nekkoon kon booboo ko gënal mbokki jullit yi nun ñëpp noo ngi dégg fan yi tawat joo xam ne niñ ko melale feebar bu metti la buy faagaagal ay doomu aadama yu bari la di ko def ci anam goo xam ne itam gu gaaw la ñu di ko dégg ci réew yi nga xam ne soriwuñ lu dara ndax ci Afrique gi féete sowwu la waaye sunu borom tabaraka wa taala def jàmm ba léegi sunum réew ak seegu fi loolu nag dana jaadu jullit bi mu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax xam ne lu ñëwagul lu nekk am na nuñ koy fàggandikoo ndaxte lee mu bañ a ñëw tomb yi di ñëw kon ay mbir la yoo xam ne nit ki mën na cee fàggandiku ba suñu borom tabaraka wa musal ko ci feebar boobu ñuy wax Ebola ak bépp feebar boo xam ne buy faagaagal ay doomi aadama la jéego ba ci jëkk mooy bari ñaan ñaan duwaa moom dafa doon loo xam ne mbiram dafa màgg màggiin woo xam ne jullit bi mooy ngànnaayam lu mag abdullah ibni omar radiallahu taala anhu nee na yonent bi sallallahu alayhi waalihi wa sallam day baat yi saa bu masaan xëy ak su gontee daf koy wax allahumma inni asaluka al afwa wal aafiya yow saa boroom maa ngi lay ñaan ak njéggal ak jàmm fi dunia wal axira ci àdduna ak al'axira loolu mooy ba ci jëkk ba ca tegu mu ne allahumma inni asaluka al afwa wal aafiya yow saa boroom maa ngi lay ñaan ak njéggal ak jàmm fii diini wa duniyaaya ci sama àdduna ci sama diini ak ci sama àdduna wa ahli wa maali ci sama njaboot ak ci sama alal allahuma astur awraati wa amin rawaati yow sama boroom maa ngi lay ñaan nga sàngal ma samay awra samay ñaaw téef te musal ma làq ma ci lépp loo xam ne lu may tiital la allahuma axfasni min bayni yadaya wa min xalfi wa yamini wa an wa min fawqi wa audu bi azamatika an uxtaala min taxti mu yow yow sama boroom maa ngi lay ñaan nga wattu ma ci sama kanam ci sama gannaaw ci sama ndeyjoor ci sama càmmooñ ak ca la di muslu ci sa màgg gi yow sunu boroom tabaraka wa taala ñu di ma yongaan yongaan goo ne suuf la may jóge bett ma kon tomb bi jëkk ci luy fekk doomu aadama yi musal leen ci wabaa muy musiba mbas moo xam ne dafa ñëw daal ci seen kaw mooy ñaan te ñu bari nag bu ñu dénkaane ay fàggandiku dañuy fàtte tomb boobu te mooy bi ci ëpp solo ñaareel ba moo di set set loxo doomu aadama dafay tuxal lu baree baree bari ci ay tawat wala ci ay doomi jàngoro yoo xam ne dañuy indi tawat su ko defee nit ki fonk di raxas loxoom ci saabu loolu ñuy wax ci wàllu wér-gi-yaram wàllu sante dañ ciy soññee fuñ toll moo xam lu jiitu nit kay lekk la wala su lekkee ba noppi wala su génnee ci wanag wala su joxanteeg loxo ay doomu raxas loxo bi daal muy set kooku ci cosaani wér-gi-yaram yi ci la bokk ñetteel ba mooy environnement bi ngay dundee muy kër géeg mbedd mi ñi góorlu ba mu set lépp luy nuroo xeetu mbalit ñu fexe ba jële ko fa ci jëliin woo xam ne mooy wi sell wi jub waxee sun nga jël mbalit ci sa kër sotti ko ci kër jàmbur wala ci buntu kër jàmbur wala ci mbedd waaye dafa am ay jumtuwaay yi ñuy jëfandikoo yoo xam ne foofu la mbalit war a dem nga def ko fa ñeenteel ba mooy képp koo xam ne sunu borom nattoo na la ngay yar ay mala di ko jege ci sa kër foo toll nga di leen sang bañ set wecc ndax lu bari ci feebar yi ñuy ragal ci mala lay jóge juróomeel ba ndox mi nit kii naan mu doon ndox moo xam ne mu set la te it bu setee ba noppi mu sàmm ko ba lu koy taqal wala mu koy salteel du ca dugg juróom benneel ba mooy sàmmoonteeg lépp loo xam ne dafay fekk sa bopp di fekk sa mbokki nit yi wala sa mbokki jullit yi ba doo leen doo leen lor ndax nekk ci biiru nit ba mu yàgg nga jekki-jekki rek tësli yooy naawee ci say bakkan di naaw di dem ca nit ña wala nga sëqat am yu jóge ci sa gémmiñ di dem ca doomu aadama ya kooku juuyante na ak teggin yi juuyant juuyoo na itam ak fegu kon jaadu na nit ki yor musuwaar boo xam ne bu dee tisli wala muy sëqat daf koy teg ci gémmiñam ngir mu bañ a lor kenn ci lenn loolu su ko ñëpp àndee def loolu lu am njariñ lay doon rawatina ci biir biir jàkka yi ak jumaa yi ndax lu bari foo xam fépp foo xam ne mbooloo daf fay daje fu ne rek bérébu euh, tuxalu feebar mën na faa jóge ci kii dem ci te kenn ku nekk da bëgg a ñëw jaamu yàlla génn dem waaye jenn doomu aadama du loru ci yow juróom-ñaareel ba mooy wattandiku ay aada yoo xam ne nit ñi dañ koo fonk ba di ko nuróoleeg diine te bokkul ci diine nit ñi tàllal seeni loxo nga ñaan a ñaan ba àggal tiflil leen ci seeni loxo ñu daal di koy yore noonu bu ñu demee mën nañoo lekk wala mën nañoo naan mën nañoo jëlee ci yow mi leen tifli feebar loolu nit ñi dañ koo tàmm di ko jëfe noonu rek waaye diine xamul benn geste boo xam ne ay doomu aadama dañuy ñëw tàllal seeni loxo am jenn doomu aadama joo xam ne day ñaan ba mu neex ko mu daal di tifli ci seeni loxo ñu daal di koy jël yóbbaale ko kon loola lu mat a wattandiku la léeg-léeg it nit ci boppam moo koy defal boppam xëy julli daal di tifli ci say loxo tiflee tiflee tifli daa di raay def ci saw yaram ki dend ak yow nga daal di koy jox loxo mu daal lay jox loxo moom it lépp loo xam ne tifli woon nga ko ci sa loxo moom mën na koo yóbbaale kon yooyu ay mbir la yoo xam ne aada yoo xam ne nit ki daf koo war a wattandiku daa iman ci ak dundam rawatina nag buñ nekkee ci jamono joo xam ne dañ ne feebar a ngi tasaaroo juróom-ñetteel ba mooy wattandiku bépp xeetu raj loo ak jaxasoo boo xam ne bu jéggi dayo wala ngay déplacé di jóge ci béréb di dem ci béréb boo xam ne feebar dafa nekk moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na ci saxiixayni ci xadiisu Usaama ibn Zayd radiyallahu anhuma mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na su fekkee ne dégg ngeen feebar buy wàlle ida sami'tum bi taa'uun taa'uun mooy bépp feebar boo xam ne dafa gaaw ci faagaagal doomu aadama te gaaw ci wàlle nee na su ngeen ko déggee ci benn béréb falaa tadxuluha bu leen fa dem di fa dugg booba béréb moom bu leen déplacé ci mukk jëm fa wa ida waqaa bi ardin wa antum fiha su fekkee nekk ngeen ci dëkk wala béréb ba mu yàgg ñu ne feebar booba ñëw na fa falaa taxruju minha nee na bu leen génna toog leen foofa boo déplacé fekki ko mën nañ laa wàll boo jógee fi mu nekk dem feneen itam mën ngaa wàll ñeneen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat na ko ci beneen xadiisu abi hurayra mu ne bu leen jël ku feebar di ko yóbbu foo xam ne ku wér a fa nekk bu leen jël ku feebar di ko dugal foo xam ne ñu wér a fa nekk loolu nag feebar buy wàlle moo tax ñuy wax juróom-ñeenteel bi mooy jaadu na ci ñépp ñoo xam ne dañoo nekk ci ay frontière ñu di leen ko wattuloo te mu dend ak béréb boo xam ne ay nit ñu yor feebar wala jàngoroy feebar mën nañ faa jaare di dugg ci nit ñi jaadu nañu ub frontière yooyu jaadu nañu joxe ndigal ne nañ ko ub ndax yàlla feebar bi bañ a déplacé di dugg foo xam ne àggagu fa woon te loolu dafay dëppoo ak li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis boobu weesu léegi fukkeel ba moo di li nga xam ne mooy média presse bi moo xam bu ñuy déglu la wala bu ñuy bind la wala bu ñuy jàng la responsabilité bi gën a rëy ci seenu loos la tege jaadowul ñuy tasaare ay xabaar yoo xam ne dafa aju ci lu mel noonu di wax ne dugg na ci réew mi te fekk dugg ci ndax loolu musiba la moo xam ne mën naa jur nag lu bare bari ci ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu bokk na ci moo di tiital doomu aadama yi te sànni tiitaange ci xoli doomu aadama yi kooku musiba mu rëy la moo xam ne mën naa tax ki feebarul woon sax mën naa feebar far wala ki mu fekkoon mu feebar far feebaram yokk ngir tiitaange tiitaange baaxul ci nit kon daganul ci benn doomu aadama muy tiital beneen doomu aadama rawatina diggante jullit ak jullit mën naa tiitloo it ña nga xam ne dañoo jógoon bëgg a dem ci réew moomee ngir yóbbu fa loo xam ne seen njariñ la moo xam ay commerçant la moo xam ñoo xam ne bëgg faa def seen alal la ko taxoon a moo xam ñu jógoon tax di dimbali ji xeet woowa la waaye bu ñu déggee ñu ne loolaa nga fa ñu ne ah, foofa de man kon du ma fa dem daal di téye lañ am mu doon lor su fekkee loolu nag dafa nekk rumeur boo xam ne dañ koo wax te dara du ci dëgg kon kooka mi ngi lor boppam mu ngi lor itam askan wa tomb ba ca tegu te gën cee garaaw ci jamono jii ñuy dund moo di man naa tey jullit yi ñu aji màkk man ma na leen koo tere ndax mépp réew moo xam ne ci réew yi ñu ñu ne ma nga fa fu mu fi nekk fu nekk ba seenum réew déclaré ko officiellement Euh, réew ma yore aj def nañ seen déclaration ne réew sangam at mii lu jëm buñ aj kon nag su fekkee ab journaliste toog na fa wala ab journal boo xam ne amul benn responsabilité ci boppam xëy xëy rek daal di ne Sénégal day feebar bi tasaaroo na fi ñooña dégg ko daal di ne kon Sénégal yi duñ aj ci ren koo kooko dana lor ci ay doomu aadama moo xam ko koy wax ab jullit la moo xam du jullit waaye mi ngi lor ci ay jullit loo xam ne ñu waroon a aji màkk war a defi seen farata man ko mu fexe bañ tere leen ko kon kooku musiba mu rëy la moo xam ne kenn waru koo fooyee kenn waru koo caaxaane moo tax suñu borom tabaraka wa taala day wax ne lépp loo xam ne dafa aju nit lu muy jàng di ko dégg mu ne ci xolam wala mu di ko déglu ci noppam wala mu koy gis ci bëtam di ko liir kooku responsabilité la moo tax mu ne wala taqfu ma laysa laka bihi ilm lépp loo xamul bul ca wax inna samaa walbasara walfuaada kullu ulaika kaana anhu masula dégg la nit koy gis di ko dégg mu joge ci yow di ko gis te fekk yaa ko bind wala yaa ko wone muy dugg ci xolam mu di ko gëm jàpp ne noona la yow mi fexe ba loola àgg ci xolam mu gëm ko am nga ci responsabilité bu rëy allahuma inna nasaluka ziyaadatan fi ddin wa barakatan fi lcumr wa sixatan fi ljism wa saatan fi lrisq wa tawbatan qabla wa shahaadatan inda almawt wa magfiratan bacda almawt wa cafuwan inda alxisaab wa amaanan min alcadaab allahuma inna nasaluka alsabaata fi alamr walcazimata ala alrushd wa nasaluka shukra nicmatika wa xusna cibaadatik wa nasaluka qalban salima wa lisaanan saadiqan daakira allahuma inna nasaluka alcafwa walcaafiya fi dunya wal axira wa nasaluka alafwa walcaafiyata fi diinina wa dunyaana wa ahlina wa maalina allahuma astur awraatina wa aamin rawcaatina allahuma axfasna min bayni aydina wa min xalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa nacuudu bicazamatika an nugtaala min taxtina allahuma inna nacuudu bika min an nushrika bika shay'an naclamu wa nastaxfiruka lima laa naclamu allahuma agisna allahuma agisna allahuma agisna allahuma inna xalqun min xalqik fala tamnac anna bi dunubina risqak allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi alaxirati xasana wa qina adab annar wa aqim alsalaa